know you are nobody's slave.

di ko ñaanal yàlla entreprise bi gën a jëm ca kanam. maa ngi ñaax sama mbokk jigéen yi ñu fas jom gën a fas jom sax laay wax si liggéey bi xam na nañu jigéen mooy àdduna buñ fi nekk woon mu ñaaw boog maa ngi leen di ñaax ñu fas jom gën a liggéey. ki nag moom mooy caméra woman laa koy woowee borom caméra bi borom caméra baa caméra bi tey dama ko bàyyeek Bamba rek mu daal di koy gérer comme que tey moom ñooy euh, ñoom ñoo aye waaw. moom tey moom yi euh, kontaan. Euh, di remercier sunu DG bu baax parce que di yombul daal 8 mars bi ñuy feetal jigéen etou mu defal ñu lii kontaan nañ bu baax daal di ko ñaanal. kontaan rek vraiment. di remercier bu baax euh, toute l'équipe de Dakar Dakaractu euh, di remercier suñu directeur fàttewuma Yves fàttewuma la fàttewuma tout le personnel di ñaan Yalla musaluñ ci seytaane musaluñ ci cat ñuy féete ay 8 mars di ko ay ati at vraiment content nañ trop vraiment on est des femmes ne vous sous-estimez pas

xam nga cousine, parce que tey moom jigéen bu ñu waxee jigéen rek wax nañ lépp parce que tey ñoom ñoo ñu indi ci àdduna bi waaw kon bis bi bis bu rëy la trop su ñoom ñuy profité occasion di féliciter jigéen ñëpp di leen encourager tamit wax leen daal affaire bi daal mi ngi nii yéena moom bis bi jox nañ leen ko. ici au niveau de Dakar Actu, on est une équipe dans le travail il n'y a pas d'hommes ni de femmes parce qu'on a vu ce que vous faites sur le terrain qui Kiné Fatima Ngoné ak sama Amazon bi anamu nabu caméra <laughs> voilà alors euh dañ leen di euh, souhaiter une bonne fête message bi nag moom mooy rek comme vous l'avez vous l'avez dit ngeen gën a góorgóorlu métti na ga mais bon c'est c'est la presse te métier parce que ñëpp xam nañ né euh am nga xeyru heureu xey mais heureu heureu heure c'est la preuve Marème elle est une femme mais elle est là tout le temps jusqu'à minuit moins 23 heures ñi ñibbandoor ensemble parfois ak ak Saliou euh gën leen ñaax rek ngeen euh, continuer ci vous les lancer c'est un plus parce que c'est la direction le directeur qui qui l'a fait pour vous motiver davantage ci ci pour renouveler également que Actu, c'est une famille avant tout merci. actuellement ni bon c'est tout à fait normal on est là avec euh, des femmes on travaille avec euh, elles et puis y a nga rythme bi ñun rythme bi ñuy au niveau de Dakar Actu jigen attanu mais ñom elles sont braves elles sont braves elles ne boudent pas à tout moment liguey bi heure bu mu munti commencer ba ba muy jeex elles sont toujours sur le terrain bon vraiment euh, et puis fi amuñu ben problème bo xamni amna am na leen di reprocher ñom dañu mériter sax lu ëpp li bon donc du moment que on y a pensé Serigne euh, a vraiment improvisé ça xalat ko ne ma carrément que ni qu'on ne ménage aucun effort pour les faire plaisir donc loolu moom motax ñu ñu def ko quoi mais suñu amone lu ëpp lii dañ koy def té ñun buñu ñu fi au niveau de Dakar carte. chaque jour ñom dañ leen di fêter parce que ñom aussi dañu bokk suñu fierté voilà donc bo gissé dans pratiquement euh, ay ku mel Marème par exemple monteuse la Nabou elle est toujours tout le temps sur le terrain oui ba paré tu vois non d'autres reporters aussi les d'autres journalistes comme Kine et Fatima ñom tam ak nous, ñom dañu ont ay robots donc kon moi je je je me dis que ni vraiment nous aujourd'hui nous méritons de nous la quoi.